tey xool yi feex moom njëkk na. Eh, mais sama mbaa jaaxal na ma koo xam ne ba mu tukkee ba tey tamit gisuma ko ah woote wut defut neen lii kër goo xam ne mel na man maa fi nekk te tamit war nañ koo wax de sama nijaay tamit kenn du moom moom mi bàyyi sama mpaañ muy dem ah lii ma ci dabaa ñaanku bu ñu daan wéttali sax léegi daa moom xëy noonu maaleykum salaam. salut. si loo ne. ça va. ah. oui ñaanku. ñaanku daa génn. Eh, man nii nekk di seen Niankoude. Niankoude daa liggéey temps yi daa am xëy. ah nii nekk di liggéey. waaw daa liggéey. wallaahi mhm. jusqu'à présent yéen nii bëgg a def boobu góor jigéen. ah. Niankou nii nekk sama xarit Sénégal yëpp ku nii gis Niankou nii gis maa nii bëgg def Niankou góor jigéen Niankou nekk sama xarit Niankou nii nekk di woo Niankou di def nii. di teef nii ah. yow loolu yaa ko dàq loolu yow mi yaa ko dàq. man nii nekk góor eh dimbali ma. man ñànku dafa am xëy di ko xëy. ñànku nu mu bëgg a doon moom moo ko def boppam yaa ngi may dégg est que. ñànku li mu bëgg a doon moom moo ko def boppam eh dimbali ma laa la wax ñànku li mu bëgg doon moo ko doon moo ko def boppam. yow maa ngi wax pareegu ma nga jàpp suñ eh bàyyi li ngay def yow maa ngi wax pareegu ma nga jàpp suñ garab gi di ko rusal nii ñànk nii nekk di def noonu yow ñànk nu mu mel ci yéen ñii la yéen a ko def ndax yow yaa ngi nii pareegu ma ngay defar sa tubay juree ji nga ni yéen yaa dangaa ñëw di man nii nekk di xas man dama lay nokk ba nga tey eh, koy nokk yow koy nokk koy nekk di la fi xanaa ñëw di seet ñànk naan dañ koo def ay góor jigéen léegi yow maa njaago da ngay déglu ma wax la la yow su ma la bàyyi ci sama kër dama yaakaar war nga ma fee mën a defal mais ki war ngaa fi moo ñëw fii ma wax da nga may déglu. maa ngi mu dóor béy. waaw ba da koy baal xam ne xelum jigéen la yow tamit góor ana ñëw ci kër jigéen fekk fi jigéen yow tamit. Oumba nii xeewul kii xam nga moom ñànk nag kiif kiif yow tamit nag bëgg le ma sama ñànku te yàlla tax kii moom ñànk ñooy ànd. ñoo fi di tàccoo ko waaw da ngay déglu da man nii xoom yi ma de maa ñaago dimbali ma ngir yàlla nga ñëw nga jàll si yow baal ma kii kii baal ma ay waxam fii nii ñaan laa dem ak kan laa ñëw lii ku ko xool ki lii xam nga ne ku ko fekk fii ma dugg si ñaanku nekk ma rek yow sama xarit nga xam nga ne xaritu ñànk sama xarit lay doon. war naa wax ak da koy jëlal. loo xam ne ma ko jëlal Paar. dox ma koy jëlal Paar Ubbaañ nag kii bi nga fii laa toog dina jàmbat naan Ubbaañ ñëwagoo. waaw Ubbaañ waaw bu ma dalal yaay wax rek yow tamit nag. ah sama Ubbaañ ñu ngi lay wax nag damay doon. Ubbaañ ah xam nga maa ko wax. yaw yow moom xaw xaw ban problème ba am ah yaakaar ne yaakaar ne xëy liggéey moom nga war a da nga war a jóg rek loo am sa yoon liggéey booy liggéey da nga koy da nga koy teg si yoon teg ko si tënk tënk ah, ba ba am fooy liggéey ah, waaw nga wut ba wuti ba ba sax mu lem xaal ba gis ba gis ko waa kay télé bi ah woote yàlla gën woo woote yi nekk bu ñëw. ñaan ku la def fii. waaw ah, waaye yu may def fii moo jëla laaj nag ah. merci waaw kay waaw kay ay ay ay sama nijaay sama nijaay woo ma sonn si ñànku dama wuti liggéey dama wax wax naa fa sonn moom moom damay wuti xëy léegi nag ah ah waaw ah, kay dama dama fee fu fu fu liggéey afa ñoom yow mënoo liggéey loolu yow yow daf nga ma dem si suñu Mbàkke Fall tôlier ma ko dama bëgg a def tôlier mu ne ma daf nga ah ah ma dem ma dem fee ay ay ay si SIP ne ko dama bëgg may jaay ginaar ay ay fataay complet mu ne ma mu ne ma yow daf nga léegi nag yow yaa ma def ah maman damaa bëgg nga nga jéem a ah ñu ñu ànd di xëy liggéey foofu. ñaanku ah. mbaa mu liggéey. yow. Ah. waaw sama njëriñ mooy mooy liggéey yow looy liggéey fóot. fóot kii keroog gis naa la foofu moom fi nga doon fóotee waaye bu ñëw di boo fóotee. Ah. fii fii moom mënu maa def foofu moom mënu maa soo fóotee ma dem weer man mënu maa loolu nga la mën a fette bi naan fii fii fii fii loolu sama jàngale loolu ba mu mën koo jeexal pour dala si bañ a dugal suba la génn xam naa si jug. ah non non non dama si génn bravo bu ko ma ngay ko xaw xaw dàqalal rek soo soo nangoo sama nijaay nee lu liggéey bu mu doon su dee sax sax su ma amee pantalon buy sax sax moom baaxul moom ah, naa la xoolal si li may liggéey fóot subaa waaw bu subaa may xëy waaw ñu weer la yaru nag soo fóotee ma weer waaw non xaw xaw ma xaw xaw la bañ nag ah. ah, ñu dem di fóot ngay ngay fóot bu fóot ba mu yàgg nag ñàkk ñàkk vraiment leen demal fee moo dem weer ñu nga ñàkk vraiment leen dama dama jël keef yi xaw xaw ma bugguma lool la ko def ah yaay sama xarit di. Ah, waaw waaw télé bien ñëw. waaw waaw ñoom kër ga. Hmm. après après moo moo wax sama nijaay na ko léegi am naa pantalon. mole mooy sama pantalon. mooy xëy. ah am jom nag wax naa la ko. waaw ah, daf dafay am jom dégg nga. yàq nan ko léegi day biir di ragaju